Ndar rek man xam naa ko. Mm. fa laa yaroo da ngay dégg kon li nga wax yëpp dëgg ñu ngi lay ñaanal yàlla fi ngay jëm nii yàlla na fa yàlla jublu. amiin te li ngay ñaan yàlla teg la fa. amiin bi jaay ñu nekk suñu wërsëg ñun ñëpp. amiin dajee Moussa wa salaahu waaye nag kii moo jaay réew mi. waaw moom laa xam <laughs> moo jaay. waaw salaam sama gars yi kaay dem déglu kii moo mën a fen kii moo mën a dul mësuma gis ku mën a dul ba mel ni waa ji waa ji nee na ndaw yi nga xam ne ñi ngi jël gaal gi li ko war a dul leen lu dul ginnaaw ba nga xamee ne kii di Macky Sall dafa wax ne 2024 du nekk candidat loolu moo tax ndaw yëpp seen yaakaar tas ba tax ñu jël gaal gi fu nekk di génn réew mi diglu leen vidéo bi ñu daal di dellusiwaat. ndaw ñu commencé jël gaal ñi dama jàpp ne espoir la ñu ñàkk espoir si lan bi président Macky Sall falo loolu gëm naa ne gis naa ne yéen ñëpp gis ngeen ko amatul woon mais démb bi président taxawee ne nekkatul candidat day bàyyi xale yi ne kon seen yaakaar tas na soo leen di xool semaine boobu la xale yi commencé jël bato bi pour génn Sénégal parce que dañ jàpp ne ki nga xam ne moo soppi doxalinu réew mi soppi doxalinu senegal ba ñëpp am envi tey doon sénégalais. non kii moom concours dul bu amoon moo koy gagné ndaxte am na ñu mën a fenn maanaam lépp fenn yëpp li ko war a leen lu dul intérêt rek ngir neexal Macky Sall tax nga nekk fi di fen naan ay ndaw yi nga xam ne ñi ngi jël gaal gi li ko waral dul leen lu dul seen yaakaar daal ci réew mi ndax ki nga xam ne mooy Macky Sall def na fi loo xam ne kenn defu ko non du dem ay magam jëm buñ taxawee di fen ci ay kanamu xale di duul ay duul yu tooy xib mu leer na li ñuy li ñuy wax dara amu si ndaw yi nga xam ne ñi ngi jël gaal yëpp boo leen woowoon leen lan moo tax ngeen di jël gaal gi ñu ne mag saal yàq na réew mi ñu ne Sénégal amul dara yow nga taxawoon nag naan li tax ñuy jël gaal gi du leen lu dul président Macky Sall mi nga xam ne bokkutul 2024 moo tax seen yaakaar tas kii moom na fen yow waroon ngaa taxaw waroon ngaa jomm taxaw di wax kàddu yu mel nii waaye nag faaw nga wax ko parce que réew moom boo fi nekkee boo mosee dara ci nguur gi faaw nga faaw nga génn faaw nga say boo mosee dara faaw nga say de faaw li nga mos danga ko wax loolu moo waral ngeen di jëfru nii di wër di fen di duul di dajale. xam nga ni yow boo taxawee naan mag Sall li moo tax gars yi di génn réew mi yow sax au contraire ñun ñoo waroon a taxaw ne yéen ay financé booyu pour ñu génn nga yow <laughs> nga taxaw naan naan booy mag Sall moo tax ñu ñuy génn ndax seen yaakaar daa tas ci réew mi dëgg dëgg daan siñ bi réew moo xam ne mag ñi sax dañuy fen ñoo xam ne amuñu benn solo ci réew mi yow suñ yow dañ la war jàpp rek tëmbala ci biir géej gi bàyyi la nga dem ndax yow amoo njëriñ ci réew mi de billaahi dañ laa waroon jàpp takk la tëmbale ci biir ndox mi suñ bi yéen da ngeen ñeme yàlla waaye de leen wax dëgg wala ngeen noppi waaye ay micro wër leen ngeen di duul di fenn di bëgg lu neex nguur gi ba tax ngeen wax loo xam ne dara dara nekku si dëgg waaye lépp dana jeex incha allah lii yëpp dana jeex ci réew mi seen duul geeg seen fen geeg seen wër muy dox ak di toog muy dox lépp dana jeex incha allah 2024 loolu nag moo tax ngeen wër di fenn rek da ngeen a jaaxle da ngeen a jamono yi ñu toll. waaye dañu xam ne système bi nga xam ne moo nekk fii ci Sénégal incha allah dina changé de incha allah lépp ay soppeeku bu soob yàlla di ñaanal ku sell ki rek suñu borom yàggal ko fi wéeral ay cëram ba 2024 incha allah mu jiite Sénégal ñu ngi ko koy ñaanal te yàlla na ko yàlla def.